top réew mi maa ngi nuyu gars yi ah, di leen jàmm bu baax tey nag sama émission bi dafa ala daw bi man Fadam ndax dama dajeeg tey ji ñaari champion yoo xam ne nii ndeysaan ci wàllu làmb ñoom ñaar ñëpp ñëpp bëri nañ ak Modou Xarañ Lo kii mooy Tafa Junior bi nga xam ne nii géejawaay la dëkkoon ba léegi mu ngi géejawaay euh, nekkoon daanaan boo xam ne ci wàllu làmb euh, nekk daanaan bu mag dajeeg Modou Lo ci soixante-douze heures par ba ki moy Omar Fall mu bu way mo bu way bi ngeen di mo bu bu way mo ngi ni nek ndanan ndeysaan nekk koo xam ne tamit nek le grand champion dan champion yi fi man ci walu làmb mo bu géejawaay da leen dan daan Junior ñu ngi lay nuyu di la ñaanal jamm bu baax assalamu alaykum ma lay nuyu gaa yep euh, Fadam ma lay nuyu di la ziar di nuyu sama champion bi Omar Fall muuma ba na si yaakaar naa mbapat yu bari yo xamne ci ma mom ñoko and ko ànd ko yu melni 72 heures mbéy ak mbapatu ara jaal mbaay yooyu yëpp man ak moom ñoo ko ànd dem bëre ji ko euh, ndax euh, bi may bëreek euh, Modou Lo mbapatu Mbaye Guèye bi njëkkee daje foofu 2005 Modou Lo moo fa njëkk a daan dafa ma daw jël tànkam mu lonk mbotum colol ca déwén sa lan dajewaat ma ma fay ma daan ko xam nga waaw Omar Fall mu moo ñëw na ma bul daw sonk baal mu jël sa tànk comme da ngay mbot foofu dinañ ci ñëw. Mhm. mais tey jii ak fi lamb toll nii. Mhm. nga nekkoon le grand champion. Mhm. ànd ak daan ànd ak Omar Fall mii ku mel ni man daan na ànd ak yéen. waaw ci lamb ak ni nga meloon ci lamb te tekkiwoo ci lamb. waaw loolu noo koy jàngatee. waaw lamb nag li tax ma kii ci xam nga sama famille dañ ma doon tere bëre xam nga ñun famille loo yoon rek dañ ma doon tere bëre ma doon làkkut di bëre ji bi ma demee benn instant ba si wéer naa ci nag ci laa daal di bàyyee loolu moo tax ma teel bàyyi bëre mais nag wax dëgg yàlla moom def naa ci ay jaloor yu bari ci ci mbapat wax dëgg yàlla daan naa ci ay champion yu bari bari waaw ku dul Modou rek daan naa ci yu bari waaw daan naa ci Mbaye Gueye junior mbapatu Dubalees daan Amadou Sarr bu bu nekkoon écurie Balla Gaye daan Seydou Jola bi noonu Pikine xam nga daan doomu Mohamed Ali bi bébé Ali ñoom ñëpp daan naa leen doomu Mohamed Ali bi kii bi te bokkoon ci aréna tur bi ñoom ñëpp daan naa leen mbapat mais mais mais mais keneen Tapha Junior mm-hmm. tey jii nga demoon ba dégg daal ci mbapat yi mm-hmm. toj mbapat yi daan champion yi fi man mm-hmm. te say mbokk aaye woon la bëri loolu lu metti woon la waaw moo tax su ma daan dem ba bat sax damay bàyyi ba xaaju guddi ma jóg ndànk jël sama séer dem fajar laay ñëwaat sunu sunu waa kër ci la ñuy yëg dem naa mbapat ki ma daan tëddal rek moo yëg ne man dem naa mbapat mais chaque weekend rek dama daan jël sama sër dem wëri mbapat noonu laa daan def di ànd ak champion bi Omar Fall mu nga xam ne si mën naa ne poids lu bu mu jël rek mën naa ne jël naa poids lese bi mhm. mu ma daan considéré ñoo daan ànd di contact def lépp kii su ma ko daan daan contact rek su ma demee mbapat damay leer mën naa koo jël mhm. ndax damaa xam li ci qualité bi am ci bëri ak doole ji mu yor mhm. mooy Omar Fall mu ñu ànd at yu bari nekkoon fii équipe yi Guédiawaye mujj ñu nekk école Papakan fa nekkoon après ginnaaw bi nag laa dem rock énergie nag nekk ak ñoom Modou Lo foofu. après nag ginnaaw bi ci laa mujj daal di bàyyi quoi. dama teel a bàyyi bëri. mais mais mais mais tey jii lamb yi nekk suñu kanam. ban mbër nga xam ne nii Sénégal bokk na ci mbër yi dàq bëri yow da nga jàpp ne mbër mii moo dàq bëri Sénégal. ci mbër yi mbër yi ma gis nii nii. ci mbëru arène wala mbëru mbapat mbëru arène mbëru arène. ah bari na bari na moom bari nañ ci bari na ay champion yan mbir nga gis ne tey jii nag ñii ci ku mel ni daanaka nekk ci kaw ak ñi tëj ñëpp. bari na ay champion ay ñoom Marley ay Franc xam nga ay soq ay Serigne Ndiaye deux ñoo ñëpp ay champion ñu war a ñëw yoo xam ne si tey bu nu amee jàppale dëgg war nañoo mën a nekk ay champion ay ñoom rëg-rëg ay saakees ñoom ñëpp daal ay champion wax dëgg yàlla macha allah tey da maanaam bëri man li ma ci gën a neex mooy kii jàpp def kale man foofu laay wax ko mën bëri quoi mais jàpp ndengañ def défendre ñu naan dafa am doole dafa mën a bëri man gisuma loolu man ki nga gëm mooy ki jàpp def kale ne Balla Gaye 2 ay Modou Lo ñëw def kale boo xoolee Modou Lo combat bi njëkkee bi muy bëri ay Serigne da leen ñëw xeex ak ñoom xeexu mbedd yanu leen sànni leen bi muy bëre xaarim jàll da ko mbot mbotu loxo ci prise prise da ko plaqué raam jot lu ko loxo bi muy mooy loolu la ñu wax loxo nga xam mënul def bëri action doo ko doo ko def loolu nak nag euh, mooy bëri quoi man dama man gi ma gëm ci bëri mooy ki jàpp def action comme sama turandoo Moustapha gi ni mu naan def xam day jàpp def action loolu mooy bëri man moo tax su ma ba du yàgg ndax damay def action ba ci contact sax su ma dem école du ma jàpp damay jàpp rek def nga daanu ma ma daan man sama bëre benn daw ci yàlla. ay minutes lay doon. mais mais mais mais mais mais mais bi nga ñëwee soixante douze jours Père Mbaye Gueye. waaw fekk fa ki nga xam ne nii. mooy Mourou Xarañ mhm. lan moo leen boole yéen ñaar da ngeen a jëkkoon a bëree. waaw bu ngeen bëree mu daan la. waaw mu déggoon at ba ca topp. Mhm. mu ñëw nga wàllu yan si. waaw ndax 2005 ngeen njëkk a daje. 2005 ngeen njëkk a daje daan maa ngi toog. waaw at bi ko topp bi ko daan tamit. waaw di ngi toog. waaw. loolu nu mu demee woon. waaw 2005 dama jógul Zawal xam nga Zawal laa nekkoon fa laa jàng bëre. waaw bi ma ñëwee après gars yi di ma yóbbu géej may contact foofu moment boobu sax tàmm woon contact di takk sër. Hmm. ndax ndax ñun bëri Zawal yi bu nekkee Zawal bu daan contact ay ay kilo yu sol ay cuissard. Hmm. léegi nag gars yi daan ma da ngay yóbbu sër quoi may yóbbu sër di contact ba na ma mbapat am na fële Fass Mbaaw ci laa ànd ak ñoom Omar Fall mu ma ñu dem foofu. après ñu ne Modou Lo Tafa Senior ba pare ñu xam ñu nuroo woon quoi ma daan watu watu jubu moom it mu watu watu jubu tente léegi premier tour la ndaje ma daw fëkk tànk bi mu lonk ko motum colol ma mbaar ko après oh, suro comprendre nga ah. ma daw jël tànk bi mu mot ma mot ma daal di suro sama bopp samp ah. après ana boobu Modou Lo moo daan du balees numéro de finale sur boobu bi mu ko daan pare Petit Mbaye ma na ko cinquante mille sama kanam année boobu waa Rock Énergie ñoo jël luur bi jël lesa bi métérage moo jël luur bi Modou loo jël poids lesa bi. métérage métérage bi muy jël luur boobu moo daan Balla Gaye 2 daan tonnerre. sama kanam loolu. boobu tonnerre bi ngi bindoon ndàgg. waaw kay moo daan Elton. waaw Elton benn. booba Ndiaye Malick bëri na fa ak Balla Gaye daan ko. Ndiaye Malick bëri na fa ak Makharibu Faas. Makharibu Faas combat bu metti. boobu boobu boobu Elton lu muy bindoo Pape bind booba tonnerre di bindu ndàgga comprendre nga soo ba moo Lo moo jël final Modou Lo keroog suñu waa écrit ñu bari moo leen daan moo daan xaadim salaan daan daan kii daan magu maar la bi réparé daan bàyyi ma njoon bu nekkul suñu écrit après man mu daan ma keroog ñun quatre suñu écrit parce que daan leen mais mais Modou Lo année boobu moo jël poids année boobu moo jël poids mais tataa jël poids bi léegi ca déwén sa nag mhm. laa ñëwaat ñu day ci porte bi ma gis père génn ko bindu ma euh, lese mu ne ma noo lese yi fees na mu ne ma ci poids lourd nga bind ma ne ko mooy par mbërgee poids lourd yi ñi ñoom ëpp doole mu ne ma boo ci bindu doo bëre ndax booba lesa fees na ndax boo lesa bi ñoom gargaa fa ñoom métrage ñoom laay pita ñoom kii ñoom Tidiane Faye ñoom laay Pythagore ak coppet bu nekkoon fële lan saar xam nga ay ñoom centre bu lan saar ay tijaan Faye léegi luur bi ñoom force fa ne woon ay naar Touré xam nga ay Omar Fall moomu ay Elton métadage ñoom ñoo nekkoon ci poids mais mais mais li ma gënoon a nekk ci li ma gënoon nekk ci mbaxut waaw euh, poids lourd beeg poids léger bi ay naataango la ñu woon. ñëpp ñëpp ay champion ay naataango la léegi nag bi ma ñëwee ci buntu bi. waaw tase fa ak ñoom Modou Lo écurie Waarok énergie ñu daje foofu. te Modou Lo daanoon ci at bu njëkk ba. waaw kay léegi Modou Lo ñëw mbéy génn koy doo bindu euh, lese ndax daaw yaa yoon lese bi da ngay yéeg lourd. waaw Modou Lo bindu lourd Omar Fall moom mi keroog mu ne ma bindul lourd. waaw ma daal di daw daal di bindu poids lourd. bi mu bëree bi mu bëree bindee poids lourd ñu daw tur rek ñu boole waa ñu premier tour Omar Fall mu ñëw na ma Modou Lo nii la la daane woon daaw da ngaa doon jël tànk bi mbor la mhm. mais ren xaar ko mu ñëw mais nag moom loolu dafa mën a bëre ndax jël bi ma nga doon daan ci combat bi suñ ko suñ da suñ bi mu bëre waatee deuxième bafat bi mhm. su ma ko daanoon tay ba mu sama loos mën a damm mhm. ndax dafa ma code filage daw takk sama ndigli mhm. pour aras ma jóg man après ci laa ci laa ci laa jargandalu après doon koy dóor mbot après ñu ñu naaw ci heure bopp bi sam noonu lañ bëree keroog dafa jooy oh, <laughs> keroog la ma Serigne Ndiaye jëf Serigne Ndiaye benn. waaw xam nga ñun xamante ne suñu biir. sur boobu Amar mu ma. Mhm. moo daan météorage moom it. waaw mais kii lan nga ñuy wax ci carrière ak fi mu jaar moom moo daan météorage. Mhm. daan fa Elton dajeeg Mbaye Guèye Senior. Bégué Junior. bëre bu métti man Bégué Junior anam ma daane Modou Lo moo ma daan quart de finale. Hmm. mu daje kii demi finale ñu bëre. bo bo bo Bégué Junior la doon bindoo. Bégué Junior boo mi ngi bind kii mbay ba tey Bégué Junior bi la jëloon daan ko woowee Maalaw. mais Bégué a dégg. waaw kay léegi ñu dem pile léegi ñu ne Bégué Junior moo daan ko final Narou Touré jël na ko ñaari yoon ba fatu Mbaye Gueye. Narou daan na fa booñaa mais Mbaye Gueye junior bi muy dajee Omar Fall muuma. waaw boobu daanul Omar Fall moom tiir pii pile la ko kii par pile la ko daane danoo bëri danoo bëri bëri bu yàgg kenn ah, daanul bi ma daanee quart de finale dafa daje kii demi finale demi finale ñu bërëbul métti kenn daanul la ngemb aha ah, ah. léegi nag bin piilee Naar Touré fi mu toogu mais mbay géej ñoon dem finale Naar Touré daan ko ci déwén sa Naar Touré ñëwaat day fa ak Boy après daan Boy noonu la demee. Mhm. Naar Touré jël na ko ñaari yoon. Boy Niang bëri na soixante bëri na Naar Touré euh, final la fa dem dama bëri na fa final. Mhm. après ki euh, Naar Touré daan ko final. Naar Touré ko jël na ko ñaari yoon. mais kii kii diggante mu Modou Lo. Mhm. ca stade Amadou Barry. waaw stade Pikine ba. waaw. stade Pikine ba mooy combat waaw yaa ak Amadou kii ak Amadou a ci bëri Amadou dégg naa keroog gis naa ko <laughs> maam Balla ci la ci la bëre trompeur xaar ko dóor suuf suur boobu Amadou Fall di bëreeg euh, Modou man suur boobu laa waroon bëreeg ma doon xulle men na ñu mat si niil booba caara leen woon bëreeg combat moo tax léegi bi combat bi jeexee bi ñu wootee fii dana Modou Lo ak Omar moom danoo mat si niil maa maa kële danoo mat si niil jël la mu fa mais kii dama ko topp Omar Fall mu ma mu daan Sénégal ndaanaan yi mën Sénégal yëpp kii da leen daan bi muy bëre Gambie mbaptu oxygène dafa téye ci ngémb li oxygène oxygène waaw dafa téye ngémb li xëcc koom ñëw mu delloo mu xar da koo xar tegal ko sees mooy deux temps da koo yóbbu ba pare indiwaat ko non ki champion la bëri na Bac Seras dan ko ah mu Omar kii mooy Omar Fall mu mo diggante digganteem ak modlo mhm. bi nga xam ni ci kérok dañu bëri ñom ñaar daanaka. waaw lu ëpp. 5 cinq de temps yu ko ne kii mën na sa morom. xam nga combat wu lu ko waral. Mhm. dañu dajé Ara Dial mbay modlo Lo ñëw mbapatu Ara Dial mbay mhm. ba def ak Elton bobu Elton mi ngi tuddu babu job Elton dafa ñëk a modlo ñu dem ci buum yi. léegi ñu ñëwaat. mu daan ko ca buumi ñu ñëwaat bi ñëwaatee Elton daw jël tànk yi Modou Lo mbot ko mhm. Elton dajeeg les deux daan les mhm. ca suba ga sax lañ jël si ceeb bi jour boobu ci la dëkk ci Omar Fall mu ma Omar Fall maa ma xëcc ba ma ñëw mu ne ko kaay bëre kii mhm. comprendre nga léegi lamb jooju moo waraloon te Omar Fall mu suur boobu li ko indoon ci lamb ja mooy Saka Dior numéro 2 Abdou Kassé moo ko fi indiwoon ak Balla Gaye numéro 2. mais nag waaw kay Sakka waaw waaw waaw xam na. waaw koo wax xam na ko. xam na ko waaw waaw. léegi nag léegi nag Sakka Dior ak Balla Gaye ñoo ko indiwoon ci làmb ndax boobu Balla Gaye dafa dajeeg Omar Fall moom mars mapatu mapatu anniversaire ma Fall say mars pënd. waaw kay léegi nak Balla Gaye bëre faak Omar Mouma ñu naan daan na ko daanu ko jël ba gaaw lool ñu naan kii la kii laal suuf kii kii toog na léegi nag Omar Fall Mouma di wëraat Balla Gaye ci mbapat ñu daje foofu sur boobu Balla Gaye binduwul mi ngi toogoon ca taabul ja foofu sur boobu la métadise ñëw naan Balla Gaye ñëwul bindu comprendre nga léegi nag ci la Omar Fall Mouma bëgg Balla Gaye ak saaka ñoom bëri ci mbapat mais ñoom sur Omar Fall loxo ñu dem ba bay dégg coow mais ngarab may moo ko tëggoon dégg coow li daal di tegg lam dem ba parcel wari fa mollo bi mu eggee bi mu téyee molloo mu ne kan mooy mollo mu ne ko man la mu ne ko déedéet mu xamul numéro 2 bi numéro 1 bi la wax <laughs> comprendre nak mu ne ko man maay molloo tax mollo day mbeur moo ci bu solo yéré dalay nat dalay da trompé mais bu summee ko nga xam ne mbër la wallaay ndeysaan ndax ndax ma sha allah dolem dafa ëpp jëm moo ko war faal mu mo